asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki jullit yi ak taalibe yi ginnaaw bu ñu nuyoo ñëpp siyaare leen jiital ci nuyoo bi cheikh Mouhamadul Mountakha xalifa général kullu murit di siyaare bu baax njabootuk Serigne Touba gépp tey ñu teew fii nag ci jumaa ji àndandoo ak waa fédération bu Touba Espagne ak jëwriñ ji sëriñ Mbacke Ndiaye ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne àndandoo ak ñoom. xañ na dinañ dikk ci lim bi ci kanam fas yéene indi ab liggéey boo xam ne ña ngi ko indi ci turu fédération bu Espagne ngir jébbal ko daaira bii nga xam ne mooy muxaddimaatul xidma bi yore liggéey jumaay Tuubaa ji te Serigne Xaafiya Buso nekk ca bopp ba ak ñi nga xam ne ñoom la ko àndal ñëpp niñ ko baaxoo defee rek euh, weeru koor wu jot ñuy indi barkeelu boo xam ne fédération bu Espagne moo koy indi di ko jébbal daayira bii nga xam ne mooy muxaddamaatul xidma ren mu tombee ak ñeenti fan ci weeru koor gi ñu teew fii ci jumaa ji ngir indi liggéey bi nga xam ne moom lañ leen indil kon xam naa dañuy daal di jox sëriñ Ibrahima Lo mu yëkkati xasida ubbee ko jataay bi bu noppee ñu daal di wéy ci kàddu yi bisimilah sëriñ Ibrahima أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima واغفر لمن بنوا بنا عارفي واغفر لمن أمرهم به جميع واغفر لمن بنوا بنا عارفي واغفر لمن أمرهم به جميع ولتدخل المصلع في يدي وفي داري وثبتنه بالهادي الوفي وأهلني وأهل من يحنني ولتكفني جملة ما يحنني ومسكني سلم من الفجار وامن على الآل بما إن جاري واجعل أربي مننا محجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا خيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والخريب إليك وعدك فررت من سواك فكن بساك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا والنزير ولجميع المسلمين يا بصير si bayit yu am solo yooyu nun ko waxe woon rek fédération bu Touba Espagne moo àndandoo ak ay jëwriñam Serigne Mbacke Ndiaye mi nga xam ne moo jiite fédération bi moo ngi nii ànd ak ñun ak ki nga xam ne mooy secrétaire général bi di Serigne Ibrahima Baawo ak ki nga xam ne mooy eh, Baye Abdou Cissé Sambou moom itam nekk ci jëwriñ Touba Sewija ñu àndandoog Serigne Hadi Touré nekk jëwriñ Touba Palma de Mayorko ñu ànd itam ak ki nga xam ne mooy Serigne Abdoulahi jóob nekk jëw nekk trésorier bu fédération bi noonu itam ci la ñu àndee ak Serigne Djili Diop bokk ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba Valencia ci noonu itam la ñu àndee ak Serigne Amdi Sène bokk ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk Touba Madrid ci noonu itam ñu ngi ànd ak Baye Serigne Touré. nekk trésorier général bu fédération bu Espagne bokk ci jëwri ñi nga xam ne ñoo nekk Touba Valencia Serigne Ibrahima Lo moom itam di jànkatu xasaayit bokk ci jëwri ñi nga xam ne ñoo nekk ci Ibisa ak euh, Serigne Abdou Amar mi nga xam ne moom itam bokk na si jëwri ñi nekk si Catalunya moom it euh, euh, teew na fi muy Salaw ak foofu yëpp ci noonu itam la ñu ànd ak Serigne Cheikh Cheikh Ngay Diop bokk ci jëwri ñi nga xam ne ñoo nekk tuuba lan sorete jëwriñ yooyu ñoom la fédération bu Espagne yabaloon tey jii ñëw fii ngir indi liggéey bi nga xam ne ña ngi ko liggéey ci njiital Serigne Assane Diop mi nga xam ne mooy coordonnateur bi nga xam ne moo nekk ci Touba Espagne nekk coordonnateur mu xaddimaatul xidma bii nga xam ne mooy liggéey jumaay Touba ji kon euh, dañuy daal di yëkkati kàddu gi. jox ko ki nga xam ne mooy Serigne Adi Touré mu wax ci turu fédération bu Espagne bu noppee ñu daal di jox jëwriñ ji yëkkati kàddu gi nag jox ko waa dayra Muxaddamaatul Xidma bi nga xam ne ñoom ñoo yore liggéeyu jumaa ji kon Serigne Adi bisimilah. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balu ak di leen bal ak di jiital ci nuyu bi saahibul fadilati Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan sunu boroom yàggal ko fi lool te wér di nuyu sunu sëriñ kilifa euh, barab bi Cheikh Afia Bousso ak mboolem ñi nga xam ne bii nii ñoo topp ci gannaawam nekk ci daayira Muxaddamatul Xidma euh, ñu toog fii ak waa daayira bi ci turu Cheikh Abdoulaye Thierno Cheikh Abdoulaye Maas te Cheikh Abdoulaye ak sëñ Jili Bousso ñoom ak mboolem ñi nga xam ne bii ne ñu ngi ci daayira bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen nuyu ci turu jëwrin sëriñ Mbacke njaay ak sunu kilifa yi nga xam ne bii ne ñoo nu yebal fii ci njiitul Alaaji Abdou njaay sëñ maam Dame Lool Karim sëñ Mor Tambédou ak mboolem kilifa goo xam ne kii ne yaa ngi nekk ci Espagne te jiite ab daayira ci foo mën a nekk moo xam bu mag la wala bu ndaw la. bu jege la ak bu sore la ñu ngi lay nuyu ci turu Espagne gépp waaye ci turu fédération bi waaye ci turu jëwrin Serigne Mbacke Ndiaye ak ñu topp ci gannaawam lim bi moom Serigne Sidi lim na ko ba noppi xanaa ñu gën leen a fàtt rek na sëñ Cheikh Ngay Diop mii ñu àndalit kilifa la ci jataay bi ba noppi bokkaat ci njabootu sunu maam sëñ Omar jóob bokkit ca jëwrin ya nekk ca Lanzarote kon moom it sëñ Diop ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax gannaaw loolu nag bi ñu santee sunu borom bu baax a baax sant Cheikh Modou Mountakha sant Serigne Afia ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ñi ngi sant waa fédération Espagne bépp ci turu sëñ Mbacke Ndiaye di leen sant it ci turu sëñ maam Dame Lo mi nga xam ne bii ne ren jii moo jiite commission bi nga xam ne bii ne moo doon soññee ci ndogu yi kon ñi ngi soññ sunu bopp di soññ fu jëwriñ ne ci taalibe bu ak ak daayira boo xam ne bii ne yàlla dogal na sab liggéey jotagut a agsi na daal di dem ca liggéey ba lii ñu jot a indi tàmbali la ci ndogu yi rek ndax li nga xam ne bii ne moom la ñu yéene bu ñu ko mënoon képp ku fi dog fédération Espagne moo lay dogal ndax kenn jiituwuñu ci liggéey bi kon nag waruñ cee jiitu ba noppi di ca des ca gannaaw wala ñu cay toppi gannaaw kon dañoo war bu ñëwul ca kanam fu ñu nee benn ni ñaar ndax première day fayu deuxième fayu troisième fayu kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi doolee sant nag bu baax tey gërëm te xam ne bii ne doxalin wii nga xam ne bii ne moom lañu doxal ñu ngi ñaan mboolem fu daayira ni ci Espagne yaa xam nga ne ci biir fédération bi wala nekkoo ci nga wuy si ci te jaar ko ci sëñ maam daamloo ak ñu topp ci gannaawam ndax liggéey bi rafet na sell na tegu na ci aw yoon te amuñ ci benn jafeñ-jafeñ amuñ ci benn coono kon nag yéen ñi nga xam ne bii ne yéen ndaw yi jóge ci Serigne Afe ñëw ci daayira ci bokk ci daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi leen di ñaanit ngeen ñaanal ñu ci loolu te jàppale ñu ci di leen joxit ak cant ak nuyoo bu jógee ci jëwrin Serigne Assane Diop mi nga xam ne bii ne moo yor fédération bi wala wa moo yor daayira Muxaddamatul Xidma jaspora ci mboolem continent yi nag ndax ci biir euh, commission bii ma leen waxal rek am nañ ci yokkute ba sëñ maam Dame Lo contacté na waa Australie euh, ñoom it ren yàlla dogal na dugg nañ ci liggéey bi ñu ngi leen di séenu waa mu xaddimatu ma France ñoom it ubbiku nañ ren ñu ngi leen ciy séenu ak fédération bi nekk Amérique ak Espagne Portugal Italie ak réew yi ci doon bokk yëpp ku lim da nga dul matal ba ci Afrique gi yëpp ñu ngi leen di soññ di leen xamal ne muxaddamatu xidma gii lépp lu ci waay def defal nga ko sëriñ bi fi ko gënal ndax jumaa ji ak weeru koor li fi ko sëriñ bi teg yaakaar naa ne lam fa teg bariwut wala tegu fa lenn bu fekkee sidna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jàll na te day sëriñ bi dafa waxoon ne ñooñu buy jàll jàllee ñu jàll mu jàll te fu mu jàll dafa yóbbaale liggéeyam bi ak jumaam ji ñu ngi leen di sant nag kon bu baax di ñaanit yéen waa muxaddamatul xidma ak waa Espagne liggéey bii nga xam ne bii ne moom Cheikh mun Mountakha jox nañu ko mu jëm ci kër Serigne Touba gii na ngeen ñu ci ñaanal bu baax yàlla sunu boroom jàppandal ñu ko ba nii ñu taxaw woon yi liggéey boobu ñu taxawu ko ba mu leer nañ egg toleet ci kanam sëriñ bi ñu ngi leen koy sas euh, na ko sunu borom def ci barkeb Serigne Touba barke jataay bi barke weeru koor ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu àq ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aousu billahi min seytaani rajim rahmaani rahim barakat seexul xadim mbokki waa daara ji ñoo ngi yëkkat sunum nuyoo nuyoo bi gën a tedd nuyoo bi gën a sell nuyoo bi gën a yell ak jëmm yi nga xam ñoo toog fii di nuyoo waa Touba fédération bu Espagne bi yëpp di ko teg ci loxol sëriñ Afiya bu sa mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi waaye tamit yabal jëwrinam yi toog ànd ak ñun liggéey bi ni ko bàyyi addi lime sànq muy jëwrin yoo xam ne ñoo lëkkaloo ci fànn yëpp ci bépp ndigal bu jóg kon Cheikh Abdoul Ahad ñoo ngi yëkkati nuyoo fédération bu Espagne bi yëpp teg ko ci seen loxo muy fédération boo xam ne jëmmi mu xadimatul ma dafa dugg ci biir ndax dafay loo xam ne Sëriñ Tuubaa moo nu boole ñun waa Espagne moom ak mu xadimatul ma booleek Sëriñ Tuubaa la ñu sant ci yàlla bu baax nag ndax booleeg Sëriñ Tuubaa gët du lu ndaw yaakaar naa ne. dégg nañ ko ay yoon yoon ñu wax ne ba waa Espagne di jël seen alal di ko dugal ci béréb bi yàgg na lool kon mel ne loola mooy law ba jur lu baree baree bari waaye tamit wax naa ko sànq sañ affaire nee naa ko xéewal gi nga xamante ne si am nañ ko ci jumaa ji gannaaw yàlla mën na ne ci dayrum xaadimaatul xidma la jaar kon ñu sante ko yàlla bu baax booba léegi tamit dañu ñu di ci dugal seen loxo seenu ñaq seen xel seen xalaat ànd koog seen jëwriñ ji nekk fee muy sëriñ Assane Diop muy liggéey boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ndax defe naa ne néewaana ñuy gis béréb bu toll nii di dundal lu toll nii ci weeru koor nga xam ne heure bu weeru koor tere ba ba ba ñuy weer wii dee képp ku fi ñëw ñoo lay jox ndogu ak la ci aju lépp te mbooloo ñoo fi doge loolu defe naa ne kenn ku si nekk war ngaa mën a góorgóorlu ba sax ñaq dugg ci ñun nag ñoo ngi ci yéen ànd koog yéen fas na yéen tamit jéego buñ ci dox tey bu déwee ne yàlla nay asakay loola. am nañ ci yaakaar nag ndax yaakaar naa ne gën naa yaatu ren jii ci nem daa doxe te mbir moo gis tamit rek bu tegoo ci aw yoon ba am bureau am lu koy doxal rek mën naa gën a ko waaye du wàññiku kon mën nañoo jàpp ne lépp luñ ci def ren bu déwee ne ñu ngi séntu lu ko ëpp. waaye tamit duñ jam ci loolu dañ ko fas yéenee ànd kook jëwrin yi ni ko Baye di waxee ni ko yaatale ren fas yéene ko yaatal ci Espagne ba dëkk bu ci bokkuloon tiim danañ fexe ba bu weeru koor wi ñëwee nga fexe ba leen topp bi dëkk bu nekk rek ñu fexe ko yaatal ba jëwriñ yëpp ànd kook noonu kon loolu fas yéene ko yéene def ànd kook liggéey bi kon xam naa dañuy bañ ji guddal kàddu yi ngir jataay bi xan na waaye ñoo ngi ànd ngeen liggéey bi di leen fàttali ne sëñ maam Thierno àndoon liggéey bi waxtu wu ne ñoo koy ànd yàlla daal dogal bi ñëwee ba fii mu xaw a tàng ñu ne ko mën nañ laa yeewi nga dem ndax kilifa la ñu teewal ko fi kon daal loolu moo doon kàddu yi ñu ngi sant bu baax tamit sëñ Assane Diop ci jàpp gi nga xam ne jàpp ko ci liggéey bi waxtu wu ne ak saa su di jël temps ak jataayam ak lépp di ko jox liggéey bi kon Cheikh Abdou jàpp leen ne daayira Touba Espagne ak daayira Moukhaddamatoul Khidma duñ ñaar benn lan ñun nag li ñu yor mooy liggéey sëñ Touba rek lépp luñ xas weesu nag weesu nañ loola dëgg ma la ca des loolu rek mooy li ñu ñor lépp loo xam ne si daal sëriñ Tuubaa nga ci ku ñu xool gis ñu ci te yaakaar naa ne béréb bii gisuñu lu ko gën a kawe gisuñu lu ko gën a màgg jaar ci ngir liggéey sëriñ Tuubaa kon nag waxtu wu ne ak saa su ne ñoo ngi seen biir ànd ko génn ñoo ngi jégg lu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Euh, jërëjëf Serigne Mbacke Ndiaye si kàddu yu am solo yi yàlla na suñu borom defal nu dégg ak topp ci noonu itam ñuy jaajëfal bu baax a baax Serigne maam Thierno Mbacke moom Serigne Abbas moom borom daarul muxti ci suba ba léegi ñoo àndoon ak moom ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu Espagne kon ñu ngi koy jaajëfal di ko sant di ko ñaanal yàlla kon ñu ngi yëkkati kàddu gi jox ko waa dayira mu xaddimaatul xidma bi nga xam ne ñoo yore liggéey jumaa ji fii ci jumaay Touba kon kàddu gi sëriñ Abdou Lahad Bousso eh, Thierno moom lañ koy jox mu yëkkati kàddu ci turu Muxaddamaatul Xidma bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa ngi nuyu bokk yi fi yëpp di leen siyaara di leen balu di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa di ñaan sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko ak Eh, di nuyu sunu bokk yi nga xam ne ñoom lañ dalal fii tey di waa Touba Espagne di fédération Touba Espagne di leen nuyu ci turu Serigne Afia mi nga xam ne mooy jiite daayira Muxaddamatul Xidma te ñu nekkoon ak moom léegi mu bëggoon a yëkkati ay kàddu sax waaye fee mu nekk ci jataay bi dafa jege waxtaanukaay bi moo tax mu ne nañ ñëw fii ñu yëkkati kàddu yi fii suñ noppee ñu ànd xool liggéey bi kon ñu ngi leen di nuyu ci turam. ci turu secrétaire général Serigne Abdoul Ahad mu Moutalib président commission sociale euh, Serigne Abdoul Ahad Maam Asta mii nii di leen nuyu di nuyu Serigne Mbacke euh, mi nga xam ne mooy jëwriñu fédération Espagne ak Serigne Adi ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo fi teew te Serigne Sidi limu leen lay di am mbégte lool di yëkkati ay kàddu kàddu yu cant ak kàddu ngërëm yoo xam ne munu munuñu koo ñàkk yëkkati ci li weesu rawatina tey diggante jumaa ji ak Espagne ni nga ko waxee léegi dafa doon loo xam ne jàpp naa ne eh, booleeg Serigne Touba la ni nga ko waxee lu wér la ndax laata daayira Muxaddamatul Xidma di sosu daana ay liggéey yu daa jóge di ñëw fii ci taxawaay yi jëwrin ya fa nekkoon ñoom suñu aadi yi mat nañ ci seere te loolu daayira bi sosoogul depuis bi daayira bi sosoo ba léegi tamit eh, lépp luy matériel moo xam machine moo xam bale moo xam luy fomp euh, amul benn euh, kenn ku nekk bitim réew ñu ci jiitu waa Espagne ci luy dëgëral liggéey bi fii ci jumaa ji ci entretien bi ak ci fànn gépp bi nga xamee ne tamit euh, mën nañoo seere ci mille 2012 tamit bi ñu génnee ànd ak sëñ Mamor dañ doon dem ci daayira yi di leeral liggéey bi rek waaye ñoom dégg-dégg biñ ci am ak niñ téyee liggéey bi wax dëgg yàlla bari na réew yu leen ci roy loolu tax na matériel yu yu ëpp doole yi nga xam ne daayira bi tàmbalee nañ ko moo xam ay machine yu nga xam ne dañ ci doon dañ koy téye wala yi ñuy yéeg di dawal ñetti oto indi nañ ko fi yoo xam ne ci yóbbu personnel jumaa la am na ci ñaar yoo xam ne ba Ibrahima yi moo ko dawal sax ak bii mujj nga xam ne daaw jéeg la fi ñëw te mooy yóbbu imaam yi yi ci yorul oto ak noddkat yi ak waa daare kaamil ci tàmbalee fajar ba guddi ak yeneen yoo xam ne yu bari ci liggéey yoo xam ne mënuñ koo lim kon liggéeyu koor gi benn la ci ci at mu jot tamit mm, niñ ko daa àndee sëñ Mahamadul Muntaxa digal digal digle ko te soññe woon ci naka jekk laata muy toog jotaayu sëriñ bi ci ne na ngeen di fonk ci matériel bi na ngeen di fonk tamit di jàppale jëmm yi nekk ci biir jumaa ji muy ñiy taxawee liggéey bi ndax li tax mu koy wax xam na ne sëñ Tuubaa wax dëgg yàlla loolu lu waay mën a wax nag ci coono yim daj diine rek a taxoon mu daj ko fanweeri at ak ñett yiñ ko dum rànkeel weesu dara dara lu dul kaweel baatub laa ilaha illallah muhammadu rasulillah kon jàpp naa ne ku koy jëfal ci lii nga xam ne mooy moo koy seere ci kaw suuf muy jumaa ji fi lañ mujj gi sa jëmmam jàpp nañ ne kuy dàkk ngërëmul sëriñ bi foofu boo fa dàkkee jam nga kon it ku sëriñ tubaa taw feexale nga bokk ci njiitu loolu loolu loolu taw feexal kon loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax di ci gërëm tey xam ne eh, booleek sëriñ bi la li ngay wax léegi tamit ci te sëriñ Adi wax ko muy ni ngeen nosewaat liggéey bi xam nga ne eh, wax dëgg yàlla yéen jëwrin yéen a daa joxe ndigal am ñuy takk seeni laxasaay di dem ci marché yi ak yi di laaj àddiyee ji su waxtu yu jotee bi ngeen gisee ne jamono tisaaroo na fi mu ne nii ndax Covid bi wala dara ngeen seetaat ci seen méttitu bopp ne léegi kat nañ xool daayira bu nekk ñu seet addiye ji ñu joxe bu koor jotee sosalaat ko fédération kii commission loolu wax dëgg yàlla tamit innovation la boo xam ne mënuñ koo ñàkk sant te loolu ci seen taxawaay la loolu it wax dëgg yàlla loolu lañ doon ñaan te loolu jàpp naa ne euh, am na daayira yoo xam ne ci Europe ñu ngi ciy bàyyi xel ci loolu ñun am nañu objectif yu bëree bëri yoo xam ne mën na ëpp suñ kees waaye yaakaar naa su dee ñëw liggéey bi ñu def dafa doonut loo xam ne mbiri lu yem ci benn nit dafa doon loo xam ne euh, yoon wi dañ koo bokk muy jumaa ji mbir la moo xam ne du lenn kenn lépp ñëpp la lépp ñëpp nag lu nekk ku ne ngi ci wax dëgg yàlla maanaam li ñuy def lu symboliser yoon wépp la kon képp ku ci jàpp rek dafa mel ni yaa ngi jëmmal yoon wi yaa ngi koy dëgëral loolu nag euh, wax dëgg yàlla yéen am ngeen ci ak ràññee ak ko xàmmee te jàpp naa ne loolu ci tawfeexu Sëñ Tuubaa la bokk kon yàlla nañ ci yàlla dajaleeg euh, sunu sunu ndimbal ndimbalul yàlla yàlla na ko yàlla tëbb ci suñu kaw barkatu xaadim rasul kàddu yi nga seeral sëriñ Assane léegi tamit wax dëgg yàlla mu ne su koo ñàkk a seere moom it ci taxawaayam ci liggéey bi ci waxtu wu nekk moom ak képp koo xam ne xam na ne su la soññee liggéey bi liggéey bi avancé bëri na réew yu nekk fii ci Afrique ak yeneen ci Europe yoo xam ne wax dëgg yàlla ay taxawaayam moo fa dugal liggéey mu xadimatul xidma loolu tamit dafay sofu ci ndam loo xam ne tamit jàpp nañ ne Espagne am na ko ñu ko signalé waxee léegi ndax su fekkee ne dañ ciy roy dëkk boobu di Espagne ba bëri ay réewi Afrique yoo xam ne ci seen roy teef googu lañ duggee ci liggéey bi dafay dugg ci li yonente bi sallallahu alayhi di wax ne man sànna sunnatan hasanan fa lahu ajru wa ajru man amila bihi képp ku jëf lu baax ku la ca roy dana ca am lu toll ne la nga ca am te du yàq ca la nga ca am dara lool nag jàpp naa ne gis naa ko ci taxawaayu Espagne kon Eh, ñi ngi gën a sant di gën a tàllal loxo di ñaan suñu borom mu gën ñoo kàttanal ndam yi nga xam ne tamit am ngeen ci ko ci liggéey yi nga xam ne suñu borom tegoon na ko ci seen kaw eh, ndam muy ndam lu rëy yàlla na ci ay ndam yu bëree bari tege te mu doon buntub xéewal buy ubbi ko boo xam ne eh, ni ko sëriñ Afee waxee léegi dafa mel ne sunu borom moo namm toftale leen ak xéewal jaarale ko ci sëriñ bi moo tax sëriñ bi di leen jox ay liggéey di leen ko sos loolu nag kon lu doy sëkk seere la kon yàlla ñu yàlla boole dimbale te faj suñuy aajo bi barakati xaadim rasul kàddu yi daal muy gudd muy gàtt kàddu yi cant la ak ngërëm ak jaajëfal ak gën a tàllal loxo ak gën a gën leen a jàpp tamit ci fànn gu nekk ñu nit ni ngeen ñu jàppee ñu fas yéene leen a jàpp noonu ñu ànd di liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax liggéey bi kenn rek moo ko moom muy sëriñ bi yal nañu yal nañu sëriñ bi seereel boppam liggéey bi te nangul ñu ko te ñu bañ cee gis suñ bopp te seytaane bañ am ci ñunu yoon te kàttanal leen te dooleel leen barakati xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa solo yi jërëjëf waa fédération bu Espagne ci njiital Serigne Mbacke Ndiaye ak ñi mu àndal ñëpp di sant yàlla bu baax a baax ci jëf ji nga xam ne indi nañ ko tey di ñaan yàlla sunu borom kàttanal nu dooleel nu ba waxtu wuñ fiy ñëwati rek jëf ji di gën di dolleeku xewal yi di gën di dolleeku kattan gi ak man gi lépp di gën di dolleeku ndax taalibe yi nekk Espagne am nañu yéene ju rëy yoo xam ne am nañ ko ci liggéey bi nga xam ne Muxaddamaatul Xidma moo ngi koy liggéey jëmee ko ci jumaay Tuubaa ji fas na nee lépp lu luñ ci yëkkati rek waa Espagne gépp jug àndandoo ko ak yéen kon dañuy daal di joxaat ba Ibrahima Lo mu daal di tëj kàddu gi jërëjëf waqdi awaa ijël siina daamoo fi xidmati wa ablahum maaraamoo